asalaamaaleykum gaa yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 transfert la ñu koy dooree ak kii di Jude Bellingham bi nga xamante ni dañoo séntu ne kat ca Real Madrid lay dem. bu saison bi jeexee na bokk na ci club yi kay topp Liverpool ak Manchester City waaye nag kayiti xibaar li ñu biral moom dafa tànn ci club yooyu la Real Madrid as dal dina ciy ñëw démb nag ñu gis benn kayiti xibaar bu xam ne woon ne ki nga xam ne mooy Harry Redknapp nekk ancien entraîneur bu équipe moom na ay jegeñaale Jude Bellingham di xam le ne moom Bellingham fa mu bëgg a dem mooy ci Real Madrid voilà as tam dal di ñëw dal di koy bi di as la ci li nga xamante ne jamono bi mu ngi wër li nga xam ne mooy ay euh, kayiti xibaar yi voilà léegi nag ñu gis ne bu fekkante ne Real Madrid seen pexe yooyu sotti na ba ñu teg loxo ci gone gi nga xam ne dégg maam waxtaani négociation dina door ci semaine bi li ñu gis mooy bu fekkante ne fexe nañu ba teg ci loxo moom mooy li nga xamante ne mooy fukki at yi ñu dëkkmal amuñu dara lu ñuy xalaat ci seen dégg maam milieu bi ndax kat ñu bari gis nañu ne xëy na Toni Kroos ak Modric yëpp dañoo màgget waaye nag ñi la fa wuute doon na ci milieu de terrain bi beneen xibaar boo xam ne taxul ko neex loolu foofu la ci Real Madrid mooy kii di Luka Modric moom dafa blessé blessure boo xam ne nee na dina ko jël ñaari semaine loolu la kayit xibaar yi daal di biral ñaari semaine lay toog yoo xam ne da koy faju moom kii di Luka Modric ba tax na nee nañu dina wuutee li nga xam ne mooy finalu coupe du roi bi war dox diggante ñii di Real Madrid ak ñi nga xamante ñoo di Osasuna voilà coupe du roi ci Espagne muy euh, ko final ci fan yi la Real Madrid Osasuna a dox diggante di Man City ak Real Madrid loolu nag su boobaa dafay nekk di nga am big blow pour ñi di waa Real ndax bu ngeen di bàyyi xel Eder Militao du ca bokk ndax carton bu mu jël Modric bi nga xamante ne mën nañu wax na ci joueurs gën a am solo la bokk kon bu fekkante ne war na wutee match boobu kon loolu beneen njàqare lay doon voilà final bi moom dina ko wutee li leerul kay mooy Man City te it nga maam dina jege lool ak dellu ak boobu ndax dana a ñi nga xam ne dañu ñëw monte si muy Sheffield United ak ñi nga xam ne ñoo di Burnley Burnley ñoom ñoo jël premier ci li nga xam ne mooy championship bu Angleterre nga xam ne déwén dañuy joué ci English Premier League bi waaye itam Sheffield United moom itam nga xamante ni mook Iliman Ndiaye dañoo monté ni ki barki démb ñoom ñëpp tàmbal nañu dégg nga maam bëgg a li nga xamante ne mooy seen ab attaque ci kaw loolu ñu daldi teg bët ki nga xamne moy abib diallo abib diallo bi nga xamantene marken lo tollu ci 17 bi ak équipe bi nga xamantene moy strasbourg ta saison bi jeexagul voilà man na marqué sax lu ko ëpp lool nak motax jamono bi club bu anglais yoy diko top bu ñu sukkas ndako ci kayiti xibaar yi ki nga xamante ni nag mooy musa Wagué Moussa Wagué moom fi mu ne nii Barça Athletic ñoo ko bëgg a signé Barça Athletic sax moom foofa la nekkoon di boo ko déggee mooy équipe réserve bu Barça wala équipe B bokk mën nañu ko tuddee noonu ñoom nag jamono bi dañoo bëgg a signé waat Moussa Wagué bi nga xamante ni moom amul club bu ngeen di bàyyi xel xam nga moom jógee woon na fa voilà moom jógee woon na fa fële nga xamante ni dégg ma mooy ca Grèce daaw foofu la nekkoon ñu daldi ko fay appelé mu amoon blessure bu doy waar ba ñibbisi bi mu ñëwee am na atum yàlla boo xamante ni daana ko football lu ko loolu nag juróoloon ko jafe yu baree bari ren ji nag wala boog daaw Barça jaayoon ko léegi nag ñu gis ne moom ak club boobu mu demoon dañoo mujjee tàggale ko ci jàmm wala ku ne dem sa yoon kon ba fii ñuy waxee moom amaatagul club loolu tax jamono bi moom euh, Moussa Wagué toll ci 24 ans équipe B bu barsa bëgg ko signé waat bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi FC Barcelone googule tey jii mën nañu wax ne am nañu ñaar joueurs yu dellu si gannaaw bi nga xam ne dañoo amoon gaañu gaañu bokk na ci Ousmane Dembélé bi nga xam ne ñu bëri namoon nañu ko rawatina Lewandowski Lewandowski moom xam naa ne namoon na Ousmane Dembélé ndax temps yi yëpp kat li muy dugal moom dafa xaw a sore lool te ñu bëri jàpp nañu ne kat xëy na li fi Dembélé nekkul bokk na ci li ko gën a waral ndax bi fi Ousmane Dembélé di nekk moom da doon dugal ni mu waree kon ak am solo lool ci attaque FC Barcelone keneen ki mooy Christensen moom itam dellu seen ñoom ñaar ñëpp ñu ngi si squad bi maanaam groupe bi nga xamante ne war nañoo football foofu la ca FC Barcelone